tout droit Ndangaan Samb boo leen gisee loolu ngeen xam ne le grand champion Yaxya Diop Yékini le roi des arènes moo woote avec sa structure Fata production lamb jurey tegal millions foofu ca Ndangaan Samb waa pour clôturer sa saison de lutte avec beauté waa Fata production ñooy rendre hommage. les amateurs des îles du Saloum o fogganɗum jomne nuno jegun a code arrondissement fimla région fatick sénégal mbiyo yenani nono animation ni no ndey fatou adama diali ak ne kan a duut seen bu fimla loolu dina neex dina yëngu kon ñu def tout droit ndangaan samb le 23 ak le 24 juillet 2022 làmb cosaan ndangaan samb ak ay mbiram xam ngeen ne ah, dëkk pap ndangaan foofu moom da naqari waaye ak Fatou production dina neex dina yëngu animation nday Fatou Doudou Sène le duo de choc ah,